waaw sëñ Ngañ ñi ngi lay euh, fay di la jaajëfal euh, di la jox sa wàccuwaay euh, di remercier toute l'équipe de Timis Média bi nga xam ne tey ñoo ñëw seet si seen natango Mouride Média groupe bi nga xam ne mooy édité seen portail mouride point info. ba ñu ñu duggee ci yi ñu xam rek comme ni ñu def nga xam ne ñoom la ñuy dajeel ki ñu fekk si mooy sëñ Mbacke Dieng mooy kan. sëñ Mbacke Dieng de jëmm ju xeebu la ju nga xam ne. bu ñuy doon xayma jëmm ji mi ngi toll ci lu environ ay 1 mètre 74 euh, bu ñuy xool ay atam tamit euh, mi ngi war a nekk di entre diggante 36 ans 38 ans euh, nekk père de famille nekk fils aîné boo xam ne ci papaam ak ci yaayam jànge fii ci école privée Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ñu koy sant bu baax a baax ci occasion bi mu jox toute la jeunesse du diibawal parce que béréb boobu ñu jaar ndonte suñ jàng sax kayawut genn kawe gi waaye formé na ay jeune cadre yu nga xam ne que tey jot nañ ñu delloo ko njukkal di euh, mu jëmm jooju di Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma bi nga xam ne participé na ci si suñu innovation ak lu ndaw ndaw ndaw euh, am na lu lum ñu def parce que moom lañ teg suñu kanam def ko royukaay ndax jamonoom ak nim nim doon dundee mi ngi mel na que ba léegi nii ñi ngi koy gis daal. wàllu tukki mu euh, laaj nga ma laaj bu nga xam ne dinaa ci sawar a tontu ndax dugg bi ma ciy duggu en tant que acteur comme li tax nga seet si ñu nii c'était en 2012 en 2012 laa ci dugg bi ma ciy dugg. boobu dafa fekkoon si samay qualification professionnelle ma ma nekk webmaster webmaster bu ko mbokk yi déggee mooy un concepteur de site web mooy ki nga xam ne day defar site internet di ko administrer soit ak manam euh, site bu mën di doon bi loolu amee euh, sama jëwriñ sama mag di sama xarit muy euh, Galas Ndiaye bu Touba Info bi muy lancé portail Touba Info c'était en 2012 yàlla def bi mu koy lancé fekkuma Sénégal boobu maa ngi woon Banjul ci am lu mu lu mu doon liggéey foofu ak ben collègue boo xamné mang ko remercier de de passage ñu koy wax Ibrahima euh ci la ma wooyee dama kañ liggéey sëñ Touba ci Touba Info euh bima ñëwé mang fay fekk de fekk naa fa tamit sama xarit sama soppe moy euh, Xaadim Seck bi nga xamné actuellement mo yor Touba Vision ma def fa quelque temps euh, yalla ak dogalam comme que timit moy bolé ay nit mais mo leen tàqale mais si ci jamm la leen di tàqale parce que ku ci nekk sa vision ak sa principe ci la ñëwé lancer Mourides info Mourides point info koy lancé ngagne euh dañu amone luñu doon animé te ba légui mo nek ci ñun moy ne que cri du cœur cri du cœur parce que ba légui ni ñun gis nañ ne la communauté mouride euh lim am ci ay média ben communauté ci àdduna bi amuko euh bu mu né communiqué ku communauté mooy euh, tariha comme ni ñu koy dundee Sénégal ñun liñ am ci ay radio, am ko ci télé am ko ci site internet machallah mais ba légui buñ ci gis bu nga xamné que khilafa gi khilafa ak serigne touba gi da koy revendiquer momal ko bu bopam comme niñ ko gisé ci euh suñ mbokk tidiane ya xamné ñom amnañ ben groupe de presse bu nga xamné que ñoo heure bu déplacer au niveau du khilafa tidiane dañ leen accompagner pour relier l'information ba fu way man di nek boko ko gisut foofu seen plateforme man la baña intéressé wala amna na lo xamné do ne doo ci am jiixi jaax mais soo ko fekkee am werante bokk na ci liñu ñu si poussé le 2 septembre 2012 bobu batay tey bi ñëw Touba Info amna ben euh lu wax mbeun bu amone inondation bu amone à Touba ñu am ben portail bu web bu maga maga mag Sénégal information bi bi koy traité euh, ñun wér ñu wér yalla né en tant que doomu Touba photo bi ñu euh actualité bobu du du Touba té tamit du bëreub bërëb bi ñu wax ne fa la inondation yamee ñu ne pourquoi pas ñun ñu nek des dignes fils de Touba ñu yëngatu ci milieu bi pourquoi duñ créer lu nga xam ne que la communauté mouride da ci gis bopam créé googu ñu ko créé tamit pour la communauté mouride gis ci bopam xaw nañu indil problème ci ci benn muy tur bi dañ ne mouride la majeure partie bo dé xol ñom dañ naan la mouride info war a traité lu dul information bu jëm ci Serigne Touba wala bu nekk ci diggante Serigne Touba ki seexam wala diggante jaar-jaari Serigne Touba ak njàngaleem Serigne Touba ñun ñu gis ne dañ ne murit au pluriel les mourides et l'information on dit dégg-dégg bi pour mu leer sa bopp du caagee ne l'information mouride mais les mourides et l'information mooy concept mouride point info foofu li ma fa bëgg a leeral ngañ tamit euh, dina baax pour nit ñi dégg déglu moom bu baax parce que bu ñu dee xool au Sénégal secteur d'activité économie santé agriculture euh, technologie transport commerce Si les pionniers les pionniers de cette activité sont des mouris. en général li ci ëpp ay des nga xam écoles, mais actualité yi yi am yi génn ci secteur yoyu nit ñi duñ ko bàyyi xel té suñu yu baax na ñuy jot information di xam luy xew ci réew mi mais waruñoo teg seen bët ci lu nga xam ne ka day naqari suñu borom wala ak ah méngoowut ak diina boo ne méngoowut ak diina mooy fii ci Sénégal la la laay wax bëri na fi ay plateforme dem yu ñu xam ne dañuy wax ne dañuy tas xibaar mais lépp lu nëbb woon ci néegub sëy boo demee léegi da di nga fa gis wala da nga def ay affiche wala ay publicité yu nga xam ne ka du maanaam du jekk ci ab jullit wala kilifa di ko gis di ko gis bokk na si tamit li nga xam ne boo xoolee am na ci ay secteurs yu nga xam ne duñ ko traité muy lu demee ne ay people ak yeneen ak yeneen yoo xam ne du duñ ko traité loolu muy li nga xam ne que concept mourides point info bu nga xam ne que certains ñenn ñi comprendre uñ te muy li nga xam ne bokk na ci nga xam moo ñu gën a motiver ngir que ñu dugg ci biir euh, métier bi ñu nekk nii. maa ngi yu mag yeeg yu ndaw yi ci ni ñu ko mën a waxee yëpp ñu koy ànd ak ñoom tamit. Mhm. ndax dañoo xam gëdd gi. wala ndax dañ leen a yombal mbir mi ba tax na li ci war dëgg-dëgg ci jàpp leen ci fonk leen considération boobu xaw a manqué. waaw nga ngañ tudd nga point bu nga xam ne que moom la kenn nangut nangut ku ci wax ci ñi ma ko sañ a wax ci ñi ma ko sañ a wax nañ ma ko jéggal am na suñu ñu nga xam ne que ñi ngi telli telli di wala di xëccu di diwoo presse mais xamuñu xamuñu ñoom na caméra yi ñëw bari xamuñu kuy jàllale ku dul jàllale benn ñaareel bi mooy am na ñu nga xam ne sont des complexés ñoom jàpp nañ ne euh, am na organe yu nekk Dakar yu damay bañ a defal publicité kenn buñ cee duñ tàmbali am na si ñu nga xam ne tamit ñooñu ñuy wax ne buñ ñëwut duñ tàmbali lu leen naqari ci biir euh, communauté bi lu leen naqari ci diggante fii nii ci ci ay kàddu yuy génn.

mais ñoom ñi nga xam ne que dañuy nekk ci ay activité ñu leen di jox des budgets de communication ñuy def la ñuy def ba pare ñun ñu di ko xam bu ñu waxul rek nañ xam ne sëñ Tuubaa lañ war ma waaye li xew lépp xam nañ ko. dañuy wax ne noppi xam nga dafa am lu xam ne que dañuy wax ne la mais du noppi ki nga xam ne xam na li li ngay def waxu dara yow boo nekkee daf da da nga jàpp ne xamul dara parce que ni ma ko waxee sànq ay doomi ngërëm lañ suñ bàyyi dañoo muritu sëriñ si mag ñi fi nekkoon ba ñooñu wàcce leen ñu ñu samp kër ñun ñu gane ci àdduna am na si lu nga xam ne ñun buñ ko dee toog di ko muñ jëmmi sëñ tubaa tax sëñ tubaa moom mu tax ñuy muñ nag ñun ñu suturaal waaye ñoom buñ defee nag dañoo xamut wala suñu ignorance la wala wala suñu ñàkk fulla wala suñu ñàkk fayda la ñu ngi nax seen bopp parce que comme ni ko suñu Muntaxa Mbàkke Bachiru yàlla na fi yàgg te wér euh, li mu ko waxee ci màggal gi rek yëf yi kenn du ci dara sëñ Tuubaa la te li ñu def ni sëñ Tuubaa moo tax ñu di ko def parce que Mourides Info gii nga xam ne fi lañ nekk tey di di di fi yëngutu sëñ Abdou genn Gaynde Fatma bi ñu koy taxawal moom képp lañ ci dem toog moom wax ak moom mu jox ñu si ndigal bu par loo bu leen def yëfu daanukat fu dëgg gi féete na ngeen ko wax te kàddu yooyu mu ñu waxoon ba léegi nii ñi ngi koy jëfee te ngi gis njariñ li mais ñi nga xam ne que dañ fay nekk ci ay këri Sëriñ Tuubaa di encaisser xaalis communication di nax ñañ nekkal di ñun jàpp nañ ñoo ñu nit ñi ñuy nax naxuñu ñu te si Sëriñ Tuubaa képp ku xam ne yaa ngi koy xëyal mu ci lu rafet ak ci lu baax bis bu la fayee nga xam ne que liggéey Sëriñ Tuubaa doo fi ne. nattu googu ngir jënd seigne touba ndax lolu da day nek lo ne dañ ci sax faaw wala dañ ci jëna a seet taxé wa xam nga mbir bo ci nekké to to to tu on peut pas claquer une habitude on fait descendre escalier par escalier jikko mënoo fab xëpp xëpp jek jek rek rek nga fab rek san san ko ci buntu ci fenêtre bi genn dem dang koy escalier par escalier ngay changer mbiri ndank ndank parce que bo xolé de 2012 ak légui changement bu mag am fi. parce que 2012 de 2013 de 2014 mbir daana fi am bay bay ba jàll ke ken duñu woo ken it ke ken yitté wuñ mais légui fii nii présentement fi mi wax ak yow ni fi ci Touba la wax de diggante ak mbacké diggante Mbàkke ak Touba képp ku fi def ak activité ak genre bu mën di doon bu ci presse en ligne jàpput na nga bëgg mu mel ko du du du mel instant bi on est incontournable ak ko mën di doon ak.

ñu manqué la considération manqué le respect euh, euh, nañu def ak la ñenn ñenn ñi soit ñu jëli nit dakaar wala ñu jël nit yi feneen def ko traité ko nu nga xam nag yow mi ñuy gis fii ci mbeddi Touba fulaluñ la faale luñ la bu bu ko defee li li may sant ñi ñi ma nekkal mooy bu leen xuloo bu bu leen xeex dem leen ngeen toog mais am na suñ ñu nga xam ne que liñu ñuy di wooye diviser pour mieux régner moom la ñu nekk am na suñu xam ne ñu ngi suñu biir mais consensus bi ñu ànd ngir que ñu mën a booloo joxante loxo ci liggéey bi ñu def pour que suñu avenir ñu mën koo combattre andoo ensemble am na ñoo xam ne neexu leen loolu nekk na benn obstacle ci li ñu def. ña ci côté milieu médiatique bi ci ci ci responsable responsable d'organe yi ci am na suñu ñu nga xam ne dañu joxe bopp rocc làmmiñ am na ci. Euh,

ngañ ak fàlloog fàllu njaay ak sëñ Mbàkke Jeng siiwal ak ñu ñëpp faw ñuy bokk fu ñuy toog di naan café di nosandoo de di xalaatandoo di di tegandoo parce que euh, ni penc kër sëriñ Tuubaa yi mel fii ci dëkk bi man organe yooyu ku si nekk pencum sëriñ Tuubaa laa ko jàppee te kenn ku si nekk da nga war a mën a jàppale sa moroom ngir liggéey bi ñu mën ko e-, eggale fu nga xam ne que euh, foofu moom moom la ñëpp di xaar dañ ñu faral di tooñ bu ñu demee ci terrain bi ñenn ñi. Hmm. naan seen organisme la moom day gën di bari Touba moom loolu doo ko jàngatee. waaw non non xam nga c'est normal parce que ñooñu di ko wax. ñooñu di ko wax man mën naa ne la en 2012 bi ñuy dem ci première édition caravane bi Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma initié euh, ak euh, en collaboration de Serigne Cheikh Bass président du comité d'organisation du Magal Touba am na si ñu nga xam ne que instant boobu ay reporter lañu woon nekkuñu woon ay chef de station instant bi ay chef de station lañ te instant bi nii am nañ le site internet bopp ndonte buñ euh, euh, ci ci manifestation wala reportage présenté euh, organe mais koy doxal parce que lañ bëgg amaguñ ko ba ci dem rek bi a information bi c'est une chef de station d'une radio de la place kon ñooñu dil di xam on est sur une plaque tournante

ndonte ni muy ñëwee bari na fii nii Dakar la ëppee Dakar la fa nekk ci ay plateforme kenn xamul nu mu toll li jot mooy mm, ñi nga xam ne que ñoom ñooy bénéficier wu ci plateforme yooyu muy la communauté mouride bi nga xam ne que moom ni ma ko waxee sànq li mu yor ci ay plateforme de communication macha allah mu xool ba yan voie lay am pour assainir pour jàppale ñooñu ci ay moyens techniques wala ay moyens financiers ngir que heure bu soxlaa ñooñu mën a ñëw répondre présent ci liñ leen di soxlaa waaw gis nañu tamit euh, euh, euh, man li ma ko wax souvent tout le temps dama leen koy wax dama ne leen man Serigne Mbacke Dieng laa wax képp ku nga xam ne yéene naa la ci lu bon man Serigne Mbacke Dieng yàlla naa la ci jiitu man fu may taxaw di fa am cent mille francs ñaan naa yàlla ñëpp taxaw fa am cent mille francs ñu ñëpp ñu amandoo ko mais li ma dul mënta nangu mooy. kon ni ma la waxee sànq ci biir lii bi mooy ki joxe bopp di roccew làmmiñ buñ taxawee wow ñu bokk tëj fii li ñuy tënk nga roccee ko dem si suuf jël sa téléphone di woo ngañ wala nga woo xaayam seek wala nga woo Fallou Ndiaye wala nga woo keneen di def leneen man loolu laa mën a nangu parce que man euh, jikkooy ceddo laa yor su ma xësee wax wax naa su ma engagé wu engagé naa su ma engagé wu engagé wu ma xam ma duggoo par liggéeyam. sur le plan politique est-ce que am na surtout ça dafa am lu nga xam ne que ñun la presse ñoo ko mën a changé muy fii ci defar muy fii tàmbalee fii li tàmbalee ci Touba ñun ñoo ko mën a changé parce que euh, kenn ku si nekk ci ñun ci lii mu nekk nii man dama jàpp ne liggéey bu la Serigne tuba tànn la dénk la ko te euh, dëkk bi am lu bëri lu fay xew lu fay xew wax naa ko sànq ci samay kàddu ñi ngi koy yëg waxuñu mais dinañ toll fu nga xamne ne kat faaw ñu départager wax li xam ne mooy réalité ak li nga xamne fiction la li ma fiction la mom moy li nga xamne dañ que ngir di naxante askan parce que ñun askan wi moo ñor parce que askan wi bu ñu nee moo ñor moy Sénégal yaatu na mais Touba rek am Serigne Touba li tax ñepp bay seen penc maam ñëw fi ni serigne Touba tax te yermane jooju ñu ñuy fekk ci fekk ci fii si Touba kep ku ko bëgg a xañ taalibe yi di ñu gis ci ce chemin. te li koy xaxañ taalibe yi mooy ay action politique yu nga xam ne que da ngay taxaw nit ñi di wax lu nga xam ne dara du ci dëgg ngir sa intérêt bopp. sëñ Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma sa diggante moom naka la waaw loolu sax sama gars yi ñu ngi may tooñ naan ma le CC le chargé de communication de Serigne Cheikh Abdou Bali euh, maa ngi ko sant ko gërëm euh, di ko remercier bu baax a baax parce que euh, dama naan sama mag la c'est un grand grand bu bien. li gën a am solo ci doomu aadama mooy nga dem fa mu dindi mbalaanum cëriñam teg ko fee fa jël ko comme citoyen ngeen toog ngeen waxtaan ci li nga xam ne moo lay yëkkati am na si ñu bëri ñu nga xam ne que ñu ngi ci rëddu Tuubaa gii di ay sëti Sëriñ Tuubaa boo fa demee mënoo waxtaan ak ñoom parce que am na benn barrière buñ ñu teg sa diggante ak ñoom sëñ Cheikh Abdou Bali bokkut ci ñooñu euh, muy un confident bu bu nga xam ne que sur le côté professionnel.

am na si lu nga xam ne que euh, sama kilifa yi lay delluwaat di leen di leen ñaanaan ñu xam bu baax di leen seen baay bàyyee ak di leen seen maam buñ ko xamee rek danañ nekk sa lañu war a nekk ba kenn du am droit di di wax ak ñoom yenn yi parce que euh, surtout Serigne Touba na des particularités wala ay mandarga yu yu war a nekk ci moom du du fuñ du foo jóg gis ko du foo dem fekk ko fa du du foo toll di ko dégg wax ci li nga war a wax. dem fa nga war a dem mais am na suñ ñu nga xam ne tamit li koy waral mooy des attaques de l'extérieur mooy li nga xam ne moo yóbbu woon sëriñ bi Gabon mission boobu ba léegi ni ñi ñi ko doon def seen i jeexital sa ni fi di attaquer euh, la communauté mouride muy njabootu sa sëñ Tuubaa gi bu ma ne njabootu sëñ Tuubaa gi waxuma ñi sant Mbàkke ñi sant Buuso ñi sant Jaxate ñi sant Faal ñi sant Ñaŋ ñëpp njabootu sëriñ Tuubaa la parce que buñ ne yoonu murid bu fekkoon sëriñ si képp la talibé yi bokkuñu si kon yoon wi du egsi fii mu egsi parce que taalibe yi tamit am na rôle prépondérant bu nga xam ne joué nañ ko ci kon li liñ leen di ñaan mooy na ko ñu bàyyi xel bu baax héritage boo xam ne moom la Serigne Touba boole parce que dafa am mag mu mas di toog di wax ak moom mu ne ma Serigne su fekkee ne buñ bu ma rombante yow ci mbedd mi nii ma sereti mu laal la ñu ñu ñu taxaw lijjanti ko ba xeex man na ci am kon bu bu ma toogee mbooloo mi taxaw ma taxaw ñaan tifli nit ñi tàll seeni loxo ko raayoo la ma ko may dama ko war a muy lu am solo lu nga xamne kep ku nga xamne ne da nga nek sëtub kilifa muy ku xamne da ngay nek sëtub seigne touba wala seigne touba seexaloon sa maam nga bàyyi xel wax jooju bu baax a baax taxawaayu maire yi bu waaw xam nga euh abdoulaad ka euh, mom dafa warna na moytu ciowlo parce que l'histoire retiendra l'histoire day japp ne ba ci suñuy seut ku njëkk a nekk maire Touba ñu ne la Abdou Lahad Ka loolu war na mën a fexe ba bàyyi fi un bilan positif bu bu bu nga xam ne que ñii ñëw ëllëg danañ man mën a def royukaay ci moom wala ñu ñu bind ko ci ci ay euh, livre door di di ko fàttali ci palmarès bi mu fi def ma jox la benn misaal suñu sëriñ euh, sëriñ Touba euh, sëriñ El ji Baara Fallilou yàlla nañu yàlla taas ci barkeem diggante bi mu fi def. gàtt ci saay la mais xol lim réalisé ba képp ku fi mën di ñew ci ci ci dëkk bi sa xel dina dem ci mom Lat Ka loolu moo war na royu royukaayam mais malheureusement malheureusement je ne sais pas quels sont les blocages mais nek gut ci yoon bu nga xamne ne que ëllëg histoire bi bi mu bàyyi dina rafet ci ngir ñu bind ko. sëñ Mbacke Dieng ban plan la waaw sëñ Mbacke buñ bu la waxee la pure vérité wax la dëgg amul lu muy taamu xiif lay bañ. sëñ Mbacke maa ngi leen sëñ Mbàkke Mariama la